balaa ñu dugg si thème bi nag di jégalu bu baax bu baax a baax a baax yéen vraiment ñi nga xam te ne yéen a may suivre maa ngi leen di jégalu bu baax parce que ça fait des mois et des mois waaw ma ñàkk jot nekk ci téere yéen a ma gën a xam nekk ci jamono ji rek maanaam parfois doo am jot da nga koy bëgg nag parfois sax ma annoncé yéen a ngi gis compte bi parfois ma jékki-jékki annoncé ay thème mais du am sensu def ko doon ci jégalu nag bu baax a baax a baax a baax a baax waaw dina sama coobare te incha allahu rabbi li ma ci mën daal sama kéemtulaay kàttan dinaa ko def. pour affaire yi nekkaat normal daal di ko amaat chaque quinze jours wala chaque un mois beneen bi stop mooy bon ñu bëri dañ may contacter parce que defoon naa benn vidéo ci concours ENA euh, j'avais fait une vidéo boo xamante ni peut-être voilà ça a intéressé beaucoup de monde moo tax ñëpp di ma contacter et comme am nañ ay économique bientôt aussi concours bi dina ibbi may xaar ñu defaat vidéo bi parce que aussi vidéo bi benn objectif la mooy présenter leen benn école de formation parce que ñu bëri ñi nga xam dañ may contact loolu lañ may laaj mettez moi en rapport euh, ak euh, l'école de formation donc c' est bon de faire une présentation de cette école là parce que je les connais personnellement ma defal leen benn présentation si école bi aussi wax leen yan condition la ñuy am yan condition la ñuy defee seen euh, seen seen formation bi mais aussi l' actualité partagé ko ak yéen moo wax ne am na concours yu bëri ubbi pour yéen ñi nga xam ne bëgg def ay concours ngeen dugg si net bi ngeen xool am na concours yu bëri actuellement yu ubbi Euh, ngeen def ko surtout yéen ñi nga xamante ne ay nouveau bachelier ngeen parfois da ngeen di am manqué orientation ba du ngeen xam fu ngeen war a dem actuellement concours bu élève maître bi nag concours CREM bi na voilà dépôt yi en ligne la boo leen duggee ci net bi di nga gis di nga bi ñi ko def mën nañ ko def élève maître am na concours aussi eaux et forêts yi bi nag am na yeneen concours yu bi ñi nga xamante ne bëgg nañ tenter loolu mën nañ ko def peut-être incha allah su ma amee jot du yàgg tak naa def benn vidéo boo xamante sur l' importance concours la parce que ñu bëri xamuñu njëriñu concours ñu jàng ni di dem rek di dem rek dem rek nga xamuñu njëriñu concours donc naa si def vidéo wax leen peut-être concours daal la ko defee jeunes yi nga xamante ni souvent dañuy am bac xamante ni rêve bi université kese la donte du lu bon lu baax la mais parfois concours yi aussi c'est bon c'est très bon euh, après ngeen jéem a xool ni ngeen koy tànn seen sens aussi comme voilà comme li ma waxoon thème rek comme concours ENA la ñuy waxtaanee tey am nañ éco concours bi léegi mu donc alors que am ñoo xam bëgg ko def amuñu benn orientation xamuñ fu ñu war a dem ñu war former leen moo waral vidéo bi donc générique bu générique bi jàllee ma defal leen benn présentation euh, école de formation bi nga xamante ni fa ngeen war a dem pour mën a inscrire te jàpp naa ni foofu moom am formation de de qualité léegi léegi après générique bi. xam-xam rek kay def lu musul am moo tax du jóg ci di soppi dunia waaw jóg saak bu xam-xam. wala dox jot gi xam dafa dem ba mujj tuumu rànkee ci sam voilà après générique boobu noonu dañu waxtaan tey ci concours ENA parce que concours bi normalement incessamment war na mën a ubbeeku bu ko defee ñi nga xamante ne ñu ko doon waajal depuis euh, ñu ko gën préparé ñi nga xamante ni peut-être ñoom bëgg nañ concours bi mais amuñ ci ay notion mën nañu remonter sama vidéo yi ma defoon bu njëkk ci concours ENA pour xam quelle est l'importance ak boo paree yan branche ngay def boo réussir concours bi nga bi mais tey école de formation la ñuy wax mooy euh, consul for consul concours groupe benn école de formation la boo xamante ne ñoom ci préparation concours la ñu am nañ ci expérience yàgg nañ ci trop euh, ñoom chaque année ak concours yi xam ne ñoom par exemple concours douane euh, concours ENA concours greffe concours magistrature ñoom si loolu mooy seen yëngu ci loolu la ñuy yëngu maanaam dañ lay former préparer la tàggat la pour nga mën a dem defi sa concours parce que souvent ni ko bachelier yi voilà parce que vidéo bi aussi dañ leen amal njëriñ ñoom dañuy bëgg a def concours mais fekk préparer ou bien xamuñu les réalités d'un concours ce concours a des yoo xamante ni tant que affronté woo ko doo ko gis donc ñoom dañu lay préparer commencer la ci dès le début ba fin bi di la accompagner pour jox la. toutes les chances pour nga mën a réussir concours bi donc dafa nekk benn école de formation bu ñuy wax consul concours groupe boo xamante ni c' est géré par des professionnels ñoo xamante ay ENA ENAC lañ ENA lañ génne ñun ñëpp déjà ci moom plateforme bi ENA la génne ñu section impôt donc ñoom ñoo créer seen benn plateforme plateforme boo xamante ni dañoo recruter ay professionnels du milieu comme ay. bu dee waa trésor ay inspecteur du trésor lañ jël bu dee impôt inspecteur des impôts bu dee travail inspecteur du travail bu dee administration générale aussi ay administrateur civil lañ jël ñoom ñooy def formation donc ce sont des professionnels ñoo xamante ni jàll nañ concours bi mais aussi ils sont toujours dans le milieu ñoom ñooy exercer ñoo leen defar formation bi mais aussi y a l'intervention aussi des professeurs d'université parce que aussi ku wax culture générale parce que ku bëgg xam les épreuves de l'ENA remontel sama vidéo o naa ñun épreuve ngay def mais culture générale xam ne aussi xam dafa laaj xam bu yaatu te bu yaatu yaakaar naa kenn mënu cee raw aussi les les universitaires moo tax aussi day am ay professeurs université yoo xamante ni aussi ñoom dañuy dañuy ñëw aussi voilà participer ci formation bi y a beaucoup de formation y a beaucoup de thèmes yoo xamante ni ce sera abordé sous format conférence ou sous format awara dañ koy abordé par un professeur d'université ñoo leen koy defal. donc dafa nekk groupe boo xamante ni yàgg naa def ay résultats euh, ci domaine bi par exemple concours douane bi ñu génne nii y a des gens yoo xamante ni peut-être fa lañ amee seen sens jàll mais aussi année yi passé aussi peut amoon nañ sens aussi gars yu bëri dara ñoom nag ba ñu commencé seen formation yàgg na ba ñu commencé di def former di former di former yàgg na mais actuellement comme concours maintenant que c'est sûr maintenant c'est imminent que jege na dañoo créer beneen nouveau format pour ñi nga xamante ni inscrire guñu woon. te daal nga xamante ni bëgg nañu inscrire ci concours ENA te peut-être xamuñu fan nañu war a jaar nañu war a def formation bi moo tax dañoo benn package boo xamante ni bon formation bi durée bu yam lañ ko def quoi ñu ngi ko def benn durée de trois mois la formation bi di durée en principe parce que exceptionnellement mën nañ ko prolonger ba quatre wala cinq mois parce que ça dépend ci concours bi timing bu muy génn parce que concours bu fekkee dafa génn ñu ne le concours est programmé dans les trois mois ñoom seen formation aussi daf leen di accompagner par rapport ak timing boobu mais fekkee concours aussi c'est quatre mois aussi daf leen di accompagner par rapport ak quatre mois parce que dañ lay accompagner au début maanaam psychotechnique pour ñi nga xamante direct bi la def bu dee le régime professionnel les fonctionnaires boobu amul amul psychotechnique mais par exemple bu dee les régime direct dañ lay accompagner ci psychotechnique accompagner ba entretien donc c'est une équipe vraiment formidable ñoo xamante ne ay gars yu xam procédure bi gars yoo xamante ne maîtriser nañ les choses aussi xam nañ actualité bi aussi xam nañ aussi souvent yan thèmes yi nga xamante ni mooy génn parce que ñoom ils sont dans ce xam nañ comment ça se donc ce serait très bénéfique pour quelqu'un par exemple pour un nouveau bachelier un étudiant boo xamante bëgg na tenter concours bi je pense que mën na dem ci ñii parce que ñii am naa yaakaar bu baax ni mën nañ la si génne bon c'est pas une publicité voilà mais seulement alors que comme maa ngi boobu ba léegi maa ngi nekk sama compte bi di leen defal ay vidéo yoo xam ak yàpp naan amal leen leen ak téléphone yi may woo souvent dafa bëri jox ma numéro école de formation bi moo tax ma ni bon nañ ci baaxee ñëpp rek la nañ ci baaxee ñëpp ñëpp mën ci jot quoi na ñëpp mën a def loolu te su ma leen doon conseiller mois je vous ngeen dem euh, ngeen dem kii ngeen dem inscrire ci école de formation bi parce que c'est une formation de qualité te baax na te aussi c'est accessible accessibilité bi mooy dañoo flexible c'est formation très flexible nit ki fu mu nekk mën na ko def parce que c'est une plateforme boo xam dañ ko créer spécialement uniquement pour le concours et les cours en ligne koy defee souvent voilà la majorité des cours c'est en ligne les cours se font en ligne et les week parce que peut-être aussi dañuy calculer ko aussi il y a des professionnels ñoo xam te dañuy liggéey ci yenn endroit yi peut-être du ñu am jot moo tax on prend les week-ends et dafa am flexibilité bu bëri. samedi lañ koy def ak dimanche samedi à partir de souvent 11h lañ koy commencé ba toute la journée dimanche aussi pareillement de ce fait yow di nga mën a concentré wu benn laps de temps boo xamante ni benn temps boo am importance moom di nga focaliser wu si concours bi de ce fait tu auras les informations nécessaires boo tee di nga am bagage nécessaire pour mën a affronter di concours bi au moins pour ñi nga xamante ni ça peut c'est la première fois comme les nouveaux bacheliers au moins dinañ am expérience xam lan la te yàlla mën na def aussi aussi ngeen euh, ngeen réussir concours bi parce que ce sont des formations de qualité donc les cours sont très flexibles donc ñoom léegi dañu la génneel benn forfait parce que bu njëkk ñoom c'était par mensualité chaque mois da ngay fay euh, ñu defal la inscription chaque bu weer bi dee nga fay mais comme actuellement le concours est imminent et que ñi nga xamante ni amuñu information si lañ créé benn forfait donc forfait moo leen xool sànq moo leen 3 mois la maintenant c'est à 30 000 francs pour les directs maanaam pour les tous les trois mois c'est à trente mille francs yaakaar naa bon c'est vraiment accessible loolu yomb na trop parce que yaakaar naa moom boo leen demoon seen école yeneen école de formation yi je pense que par mensualité rek mën ngeen fay vingt mille ba mille francs alors que fii boobu bon dañuy ñoom trente mille francs la pour les trois mois maintenant après nag maintenant pour les modalités de paiement loolu boo leen jëlee seen numéro seen contact mi ngi nii affiché ci ku bëgg a inscrire na jël seen directement boo leen wooyee peut-être ngeen waxtaan ci modalité de paiement bi. mais trois mois la 3 mois 30 000 francs pour les directs maintenant pour les professionnels enseignants et autres c'est 50 000 francs voilà tout pour aussi toujours c'est pour les 3 mois donc xam leen donc su ma leen ko waxee nii ça veut dire donc yomb na et c'est pas évident donc ñi nga xamante ni njëkk nañoo seetaan vidéo bi te bëgg a defi concours ENA je leur conseille ñu teel a parce que nombre de places y aura beaucoup de candidats y aura énormément de candidats parce que ñoom dañoo wax ne dañuy dimbali waat cette cette cette fois ci comme ñoom commencé nañu formé bu yàgg mais comme am na ñu leen commencé woo nii te ñooñu bokkuñu seen formation mënuñu leen intégré dans l' autre groupe donc ñu leen def benn forfait 3 mois donc ce sera très rapide voilà donc nombre de places bi c'est limité ñi nga xamante ne jot nañ ci vidéo bi bu ñu ko seetaanee ak seen i xarit peut-être nañ ko nañ leen ko teel a wax ñu teel a daw inscrire ci numéro yi ñuy affiché sama suuf écran donc. c'est intéressant consul concours groupe dafa nekk groupe boo xamante ni c'est très intéressant et y des gens yoo ñoo fa nekk ba pare bu gën a neex encore mooy bu ñu leen defalee les cours les présentations et tout dinañ leen jox documentation encore parce que c'est ce qu'ils m'ont wax nañ dinañ leen jox documentation bi dinañ leen jox cours yi dinañ leen ko envoyé version numérique bu ko defee même le temps bi nga xamante ni Euh, nekkoo leen ci plateforme bi ku mu neex nga tëju sa néeg nga réviser nga gën a préparer sa concours am na ay documents yoo xamante ni fa dañ leen koy jox gratuitement kenn du leen ko jaay par rapport ak ce qu'on voit sur le net euh, bu concours ubbee rek gars jaay documents yi donc je vous conseille da ngeen rapprocher vite fait ci consul euh, ci consul groupe ci consul concours groupe parce que c'est très intéressant ay professionnels ñoo fa nekk ay gars yu maîtriser le circuit voilà te yaakaar naa ne mën nañ leen accompagner du début jusqu'à la fin kooku ku mu nekk nga préparé ko yow kese am nga si droit mais je pense que tu auras beaucoup plus de sens aussi nga approché ñi nga xamante ni am nañ expérience bi te fa génne génnee te actuellement ils sont dans le milieu ngi servir si milieu bi voilà lii laa amoon lu ma leen euh, bëggoon présenté tey j'espère que dina leen amal njëriñ bu baax a baax a baax a baax a baax bu fekkee y a des choses qui ne sont pas toujours claires aussi sama numéro téléphone am ngeen ko mu ngi si chaîne bi bu ngeen ma messager ma tontu leen ñu mais ngeen xamee ko noonu maintenant di leen xam bientôt concours ENA dem leen inscrire ji actuellement concours CREM aussi ubbi na dem leen inscrire ji ngeen def ko incha allah rabbi dans les jours à venir on fera une vidéo sur l' importance des des des concours voilà li laa leen indiloon tey j' espère que dañ leen amal njëriñ di leen jox di daje incha allah ci beneen vidéo jërë ngeen jëf.